ñu ñëw ci arbona nawawi de foofu la te ci moor aywa fukkeelu hadis bi ak juróom ñaar abi ya'la shaddad ibni awsin moom la de jëlee nañ ko ci abi ya'la nu mu tudd shaddad ibni aws radiyallahu taala anhu yàlla na ko yàlla gërëm amin an rasulillahi moom saddaad mu jëlee ci yonent sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na saddaad nee inna laha naka yàlla kataba dogal na al ihsaan ak rafetal ala kulli shay'in ci lépp lu mën di doon yàlla dafa la digal nga rafetal ci lépp ab julli day rafetal kon nag fa ida qataltum ndem yéen ngi bëgg a rey mbir fa ahsinu rafetal leen al xitlata rey ga reyin ga su fekkee ne dafa am lu ngeen bëgg a na rafet waay fa ida dabaxtum ndem yéen ngi bëgg rend mbir comme ginaar ak yu ni mel fa ahsinu rafetal leen adibxata rendin ga dégg nga de wala yu xidda na neexal ahadukum kenn ci yén dem bëgg naa rey wala muy rendi safratuhu ñaw ka ga na ko neexal ba mu neex wal yu rix ngir mu mën a noppal dabihatahu lam nara rendi dégg nga loolu de dégg nga